audio bañ doon xaar génn na Cheikh Bara Ndiaye am na ko audio bañ doon wax naan MC Niass am na ko jëlee ko ci ki nga xam ni moom moo di aji Sarr di filndeel te ne dafa am ab complot boo xam ne moo dox ci digganteem ak Ousmane Sonko te ki ko utiliser du kenn ko dul Mamour jàlloo Cheikh Bara Ndiaye dal dina cay addu wax ca lu doy moom nag génnee na lépp loo xam ni dafa ñel boobu lépp audio nee na ki nga xam ni moom moo di Adji Sarr moo confié wu auprès de son marabout te ñëpp xam nañ ko moo di MC Niass am na ay jamono génnoon na fi mu ne ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr di ab taalibeem ñëwoon na waxtaan ak moom te moom am na ay firnde yu leer nañ yu koy xamal te di ko wan que lii ab complot la te nekkut ay kàddoom moom ay kàddu aji saar ci boppam la daal di addu ca la nga xam ni moom moo ñeel Ousmane Sonko addu itam ci li nga xam ni moom moo ñeel kaka sant la muy def di Mamour Diallo. ñam ñambaas ci itam ñoom maître El Hadj ah, Diouf te Cheikh Bara Ndiaye nee na am na ci yeneen fukki nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir APR ñoom itam Adji Sarr tudd na leen ci di wax te ñoom dañuy séq ay mbir yoo xam ne ñëpp xam nañ ne naka noonu la tàmbalee ko ci maître El fa Diouf moom moomee taxawaan naan wax naan Adji Sarr lu mu wax dëgg la tey na fexe ba audio bi bés bu mu ko génnee bu maître El Hadj taxaw naan aji Sarr waxul dëgg ndax lii dafa leer nañ di wane complètement li nga xam ni moom moo di complot bi mu leer nañ set wecc MC nag dégg ci lu ne waaye enfin boobu lépp audio Cheikh Bara Ndiaye nee na daal dina koy déglu te mu ngi ak moom te mi ngi jox ñëpp rendez-vous ndax daf koy teg Sénégalais yëpp daal di koy am bu ko defee ñu xam exactement complot ba nan la tëddee woon ak complot ba nan la fa demee ak kan ak kan ñoom ñoo ci daal di woon laale kii di Mamour Diallo ñan la àndaloon ci liggéey bi Adji Sarr itam ma wax ne setal na Ousmane Sonko ba mu set wecc mësul séq ak moom dara loolee lépp dina nekk ca la nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye fas yéene na koo dégtal képp kuy sénégalais nga intéressé wu ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr nga intéressé wu en général ci wàllum politique ndax la ca nga xam ne moom moo ca tukkee nekk na lu soxal sénégalais yëpp ndax mënatuñoo continuer nekk ci dëkk boo xam ne tout le temps à tout instant tout moment on ne parle que de Ousmane Sonko Adji Sarr te loolee dafa boy ci nopp sénégalais yi ñu bëgg cee génn dem ci beneen level te loolu dekkut lenn lu dul dépasser le cas Ousmane Sonko aji Sarr te dañoo soxla dund dañoo soxla aafiya te loolu yëpp. dara waralu ko woon ab complot Cheikh Bara Ndiaye daal na koy fésal di xam le ne nag na ñëpp seen xel dal ndax Ousmane Sonko day dem wuy ji kii di Maham jàlloo waxtaan ak moom ci njëkk ak teraanga daldi ñibbisiwaat ab këram dara du fa xew dara du fa yëngu dara du fa génn comme xibaar boo xam ne aji saar dina ko indi ci usman Sonko buñ ñu xamutoon wala bu ñu amutoon lépp dafa leer nañ te bés bu fekkente ni Ousmane Sonko itam mi ngi ak audio bi nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye am na ko nañ leen leer ne bureau doyen des juges dina neex lool ndax dina nekk lu doy waar loo xam ne aji saar du xam fu mu koy waxee te ce sera un audio bu ñuy teg. ci kanamu kii di maître El Hadj Diouf mu nat cee dégg mbóosóor ya ko Adji Sarr waxal nat cee dégg itam ñaawteef yëpp yi nga xam ne aji Sarr daal na koy énumérer li ma wax nag du samay kàddu kaddu yu Cheikh Bara Ndiaye la mu ne li nga xam ne am na ci mbir mi nekk na la doy waar nekk na loo xam ne nag bés bu ko Sénégalais yi jotee dinañ xam dëgg dëgg dëgg dëgg ne ab état bu doy waar lañ ko seqal état boo xam ne ñi ko composé ñëpp daanaka mën nañ leen tuddee ay defkatu ñaawteef lu ni mel nag doy na waar te de wane encore une fois que ne suñu Sénégal gii war nañ cee jóg suñu Sénégal gi le mi ngi dem dans la dérive te fa nga xam ne fala tollu jamono ji nekk na loo xam ne arrangé wu ko benn yoon duñ ci jëlee benn ndam au contraire gàcc kese lañ ciy jëlee ndax président Macky Sall ak i ñoñam ni nga xam ne noonu la ñuy dundee ci réew mi nekk na loo xam ne dafay waddal suñu ay institution di ñàkkal fayda itam li nga xam ne moo di kilifa yi ñu waroon di respecté file surtout ñi nga xam ni dañoo nekkee ci wàllum justice Sénégal ñëpp xam nañ ne kenn faaleetul procureur Sénégal buñ sax day mel ni benn mbir mu élémentaire boo xam ne moom la ñuy tudd sénégalais yëpp ñoom ñoo jug yeewu conscient ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi ndax kat dañoo dem ba xam ne li nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy dundee ak sénégalais yi nekkul luy woy waaye tamit les sénégalais ont fini par comprendre que bu ñu jëlul seen avenir en main ñun ñoo fi nar a tardé président Macky Sall moom lenn kese moom moo ko yitteel mooy naka lay def ba briguer un troisième mandat Ousmane Sonko Adji Sarr ca bureau doyen des juges du nekk lu yomb ndax kat la nga xam ni moom moo fa nar génn dina nekk lu explosif ndax dañ koy faral di wax ci suñu ay jàngat lenn la ñu njort ne moom moo am mooy que ne Adji Sarr depuis le début dafa nax yoom Mamour Diallo nax yoom maître El waxu leen exactement dëgg bi nekk ci mbir mi ndax bu fekkoon naxu leen moom Adji Sarr du dem di confessé wu ci kanamu ab sëriñam di MC Niass ba am ab enregistrement boo xam ni jot na faa génn te nekkut lenn lu dul moom Adji Sarr mi nga xam ni moo demoon di xam la ne dañ koo utiliser tout simplement ngir dal di atteindre ab objectif objectif bi du woon kenn ku dul Ousmane Sonko ñu jaarale ko ci moom mbir mi nag mi ngi tàmbali di leer benn par benn ki nga xam ni moo di Cheikh Bara Ndiaye fas yéene naa éclairer la lanterne de Sénégalais ndax ñoom ñëpp ñoom ñoo jaxle soxla xam dëgg gi te dëgg gi feeñ na yàgg na fay nekk sax ndax Sénégalais yi Ousmane Sonko ca génnam bu njëkk ba ko gëm ba tey amul benn changement boo xam ne daal dina ciy am Sonko kàddu gam noonu téye démb moom la téyewaat tey jile kàddu gam nekkoon dem moom la nekkaat tey dara changé wu ci bougé wul d'un iota ngi def li nga xam ne moom la warloo ak sénégalais yi saa su ne di informer saa su ne di waxtaan ak ñoom mbir mi nag bu fekkente ne moom Cheikh Bara Ndiaye daal di lay am yooyu la audio naka daal di génnee sénégalais yëpp daal koy déglu gën conforté li nga xam ni moo di liberté bu Ousmane Sonko waaye itam nar koo gën a may doole bu baax a baax ndax nag bu fekkente ne Cheikh Bara Ndiaye lii mu yëkkat ci ay kàddu amul dina nekk lu doy waar. ndax moom Cheikh Bara Ndiaye xamee ko waxantu xamee ko jëf ci lu ñàkk fayda xamee ko itam di ko def te loole doy na ci ay qualité ngir mën a xam nit exactement moom lan moo di ay mbébétam ngir mën a xam nit lan la fas yéene liggéey ngir ab réewam. Cheikh Bara Ndiaye nag mu ngi liggéey liggéey bu ama am solo ngir Sénégal ndax kat moom. kaddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati teel a avertir nit ñi que ne am na lu jëm ci wàllum enregistrement boobu nekkul lenn dul luy réconforter sénégalais yi waaye itam di gën a xamal doyen des juges que ne bu fekkente ne def na ci mbir moo xam ni teguwul ci yoon waruñ ko woon defee noonu moom usmaan Sonko dina ko war ne ko man actuellement je leader de la politique te yow mi nga xam ne yaa ngi war a def sa liggéey defoo ko ca na mu waree ah, nga bëgg a par parparloo sama diggante ak yow xamal ne kat di nga rendre compte ci lépp loo xam ne yow di nga ko def fiile te sénégalais ñi ngi ci biti taxaw di xaar lenn kese la ñuy xaar man Ousmane Sonko ñu daal di may setal loole mooy la nga xam ne war naa mën a am gise bii nga xam ne dox na ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr fas yéene jano ci biir bureau doyen des juges mu nar a nekk nag loo xam ne du yomb nar nekk loo xam ne ci la nar a gën a doy waaree ndax ñëpp xam nañ ne ay avocat wu Sonko duñ ko may dara ba ci Ousmane Sonko ndey mbill ji ñëpp xam nañ ne bu yëkkatee kàddu wax kii di Adji Sarr wax nga jël waxi Adji Sarr mel ni ku ko mësul dégg ndax Ousmane Sonko ak Adji Sarr ce ne sont pas en plus de cela mbir mi Ousmane Sonko da koo jël en main ndax dafa xam ne c'est de la politique pure et dure Macky Sall a tout manigancé selon ses propos AGT News